original ay waay fii xel pur jus de fruits original moo leen di wéttali ci seen bépp xew salaamaaleykum mbokk internautes yi ñuy seetaan à travers les différentes plateformes ñu ngi di jaar am mbégte contentement ak di ànd ak ngi fi nga xamante ne moom moo di Parcelles ah. seet ah, si nag ki nga xamante ne moom moo di kër Diack ah Diack gars yi nag mësi lañ koy woowe waaye nag ñii ñoo ko seet si nag muy waa Géejawaay Mathia ngi nii Mathia nag daa mel moo jiite délégation waaye gis naa fi ñu gis fi Madji Madji ndigal a ngi nii sama wëcc Mathia maa ngi lay bëgg la jaar bugar maa ngi lay fay ginnaaw ma sante yàlla jub si tamit sant suñu waajur di sant Guèye wala bu ñu jógee di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant Ahmed Aidara monsieur le maire di sant Balla Gaye di la employé dëggeer di Sa Thiès guy gi ñu ngi sant kilifa yëpp di sant ñëpp képp mbër bu am ñu ngi lay ñaanal ndam ndax ko amagul ñu ngi lay ñaanal ndam combat nag boo gisee suñu teewaay fii jaar le messi dala rek mhm. tey dafa am ay affaire yu ñu def yu bari bari saison bi passé mhm. tey amuñu lu dañ koo bett nii. Mm-hmm. parewul woon lii sax. Mm-hmm. parce que nit ki dafa am yoo xamante ne bu la ko defaralee. Mm-hmm. tey nga gis ko tegal sa bët kenn ñettal la. yoon la nga ñëw tey toogaat ci bërëbam pour sant ko gërëm ko. tey loolooy suñu tànk tey yi passé da see jàpp sama combat yi ñaar am na lim ma gën a gëm ba ñëw toogaat fii tey. dafa am lim ma ci waxoon. ma boobu ma dem. te lu ma demee damaa gis. tey li may wax nii ndigal nii xam na ci dara. Youssou Ndour nee xam na ci dara. kon. tey boo demee ba xamatoo fooy dem. on mhm. se dana dana dellu fa nga jóge woon. mu nekk nit ku baax nit ki nga xam ne tey li muy def làmbaatu ko da koo mën. Mhm. te si dëgg rek la ciy dox. Mhm. mooy boo ñëwee war a amoo waroo am sax danaan la yow mii doo am. du la nax daal. waaw mënoon na la nax mënoon na lekk sa xaalis. mënoon na enquête suñuy 300000 ak 400000. Mhm. lekk ko ñëw nañu boobu bu lamb jeexee bon daanee mu def yeneen sëriñ. li nga fi la boo xamante ne du mhm. boo fi ñëwoon fii fii lay defaroo waaye su ko warut a defar la nakat lii foo mënti dem ci àdduna. Mhm. du sotti parce que moom li ko tëb bariwul. dëgg la yaa ngi kon amuñu lu dul ñëw toog sant ko. Ah, gërëm ko parce que loolu rek la da ngeen delloo si njukkal daal fettali si kóllëre waaw mm. parce que yàgg na jàpp si affaire bi mm. waaw dimanche yi ñuy bu baax a baax ba dimanche yi ñuy ñaari ndam yi ñu ñàkk mm. dafa am li moo ci wax loo xamante ne tey moo gën a causal ma ñëw pour leeral ko waaw parce que tamit dama koy xamal ne dëgër bopp moom boo ko defee dañ lay bàyyi ma gis tëlëtëlë soo baax tëlëtëlë mu tëf bàyyi ma gis moo tax nag amuñu li koy wax ne nag gis nañ affaire yi gis nañ lépp liggéey bi mu liggéey saison bi ni mu rafetee. Mm-hmm. liggéey liggéey ba pare xam nga mu nekk benn maara boo xamante ni. Mm-hmm. ragalul fu mu jëm. Mm-hmm. tey combat Balla Gaye 2 Tapha Tine yaakaar naa ni yéen ñëpp yéen nga seen internet balaa combat bi di ñëw génn na sorti wax. wax lu combat bi di demee. combat bi ñoo demee noonu. ak yeneen combat yi nga xam ne da siy ñaan da siy wax avant combat bi. te combat bi ñëwee noonu lay demee. yaa ngi gis. mais nag dañ koy ñaanal rek comme ni ñu def nii tey. ñaanal ko jàmm. bu dul fan ak wér gu yaram cam seexlu ko. mais dañuy gis ne souvent ay sëriñ yu bëri aussi du boobu Balla Gaye naan Balla Gaye maa ko ngeen ko Balla Gaye nii Balla Gaye naa ñu mm-hmm. te xam nga rek yaa ma gën a xam. ah même pas loolu moom ku ah. nekk ku nekk ku la nekk toog fu la neex. Mm-hmm. ne maa ngi mu diw maa ngi mu diw maa ngi mu diw mm-hmm. mais jam yi daal ku ne ku ne xam na ku ko déggul tamit. ku ko xamul tamit dégg ko. waaw moom muy def nekk fi di puubare wala muy mbubboo nit wala def dara. li muy def def ne ko gars yi yëpp teg nañ si kon tey aw jarul ay maa ngi mu kii maa ngi mu kii. moom daal. en tout cas li muy def nit ñi gis nañ ko te ñu am na lu mu ñu wax ñu teg suñuy bët man mii di wax am na li mu wax moo Balla Gaye yàgg rek ñoom ñaar ñoo yàgg jabu muy ànd ak Balla Gaye loolu yàgg na loolu tey mën naa la sax suma rek mm-hmm. mais ñoom muy def muy def di jàpp si kër yéen Balla Gaye mm-hmm. jàpp rek te woo bàyyi nga xam ne lépp dina ne mm-hmm. maa lay bëgg kon loolu bëgg bu wér kon ndigal waaw ah, ñëw ci ndigal hmm. ah ndigal maa lay bëgg. onze bi la bisimilah ñu woon yàlla ñu ngi sëñ bi la. ñu lay fay bu baax di nuyu ñu fi teewee. di nuyu nag fu ma fekk mu déedéet mag bi. di suñu sëriñ. di sama xarit di sama kilifa. muy Jalle Messi. waaw baat boobu moom léegi mu ngi dugal ñun moog Sénégal yi. Hmm. waaw commencement bi ñu naan la Messi ñu ne ban sëriñ moo war a osé ba naan Messi. mais bëri ki dama combat Balla Gaye Tapha Tine bi da kaa gën a confirmé. Hmm. ndax man bu ma waxoon maa gën a pànk ci mbir yi. dama naa defal dama naa daal di sant. Mhm. te mën naa toll su loolu amul la. loolu kii bi ma mhm. tëj fi ma toll. waaw parce a man xam naa sama bopp. Mhm. waaye wax dëgg yàlla damaa yàgg a dégg ñoom Youssou Ndour di di di joobee jàpp. te bëggoon naa amul relation mais mosu yàlla bëggoon ko woon. ma gis Youssou Ndour di ko bàyyi difficile ba ñu bëri jaaxle si la dañ lay dañ lay daal. mu ne ma dégg nga bàyyi ma dem si jàpp. waaw su demee ñoom def résultat bi. ba ñu dem xale yu jigéen ñi yàlla am si ay résultats yu leer nañ te lépp ja waxoon ko avant. Mhm. match mi dëgër ba comme ni ko waxee combat yi yëpp mu ñëw ah, ma soxla pousse. Mhm. Mhm. yàlla na yàlla may na mais yàlla am na ñu muy xamal. xam nga 2013 ñoom tafaati ñu jaaxle woon trop. xam nga coow li bari. Balla Gaye tafaati ne si tax tamit na ko gaañ ñeeg naa jéggeen def la muy def def déclaration am ba xaw ma dafa léeg-léeg da nga génn def wax la te suñ ma defee li ma wax. Hmm. lii mooy am 2013 jàll na ba 2024 mu yàgg lool tabaat yi tege 10 ans kenn mënu koo daan Balla Gaye jëlaat ko jëg génne Balla Gaye lii ak lii ak lii su jaaree tëtël bii ak bii ak bii ñu jaaraate ko yàlla suñu bopp suturaal ñu may ñu ndam te euh, Sénégal yi nag ñoo mën a comme li wax sànq sëriñ si bay nañ ku ne maay diw maay diw maay diw mais ñun jëm yi hmm. jëw Balla Gaye ñun hmm. ñu nga a xamante yàlla su Balla Gaye ñu ñu def lii ak lii am seen da koy wër doomu da koy def man kenn nettalu ma. Hmm. si làmb ji Balla Gaye laa ko déggee. Hmm. yàlla loolu yàlla dogal gisante wuñ làmb jàll ñu a xamante. Hmm. ñu jàppante jàppante ba yàlla dogaloon a a gis mais bi Balla Gaye bi mu ñëwaatee. ñun xam nañ ne jañoo ma. te ma ca pour ma preuve dimbali ma fekkee am connexion nga taal nga woo ma Balla Gaye appel vidéo. mu dugg confirmé li ñuy wax. wane na jëmi jaam la. xam mais nag ñun waa géej waaye soo ko soobee ñu def délégation ak déplacement ñëw ko fii. Mhm. pour cant kese bi parce que saison bi tëj na. Mhm. mais sa normal boo nekkee saison di prouvé. Mhm. def say preuve saison bi jàll nga dem seet bi nga leen jàppale. di sonn ci yow di leen dimbali te fi mu nekk tamit moom mu ngi dëkk passé. Euh, mais nëbbatuwul ne dafa bëgg waa géej te fu mu mas a nekk ñun waa géej waaye fekk nañ ko. pour ñu xamul quoi yaakaar na ko à bas Youssou nekk mbër mu ndaw di bëre ma mhm. ba tey jii ñoom ñaar ñi ngi gisante mhm. fu mu mas a nekk Youssou ñu fekk na ko te ñun nit dañuy passante léegi ñun buñu jaaxle nga ñëw suñu dama jaaxle mooy laa am naa sama kilifa goo bu ñuy gisante man laa dem seen jaaxle te wax dëgg yàlla ba ci dem sama combat ak arène bi ba jaaxle mhm. soo gisee ma noonu du ma dem sëriñ si bëri si moo dara sama xel ne bu la neexee bu dem fenn toogoo topp te tey def lii ak léegi moo ko defee yàlla sutura nañu may si tam sëdd bi ñu ñaan yàlla ndam yooyu kon may mooy ni koy ñaar yàlla di wax te pour bëgg soo gisee bu bëgg Sénégal yi xam kan mooy jàpp waaw parce que ñu bañ bàyyi àll bi ñu topp ñu nax di hmm. ñu fenn parce que lii ay vidéo la hmm. suñu xamoon ne dara ñëw fi hmm. fi def vidéo pour kenn ñëw fi ah, mais yéen Sénégalais ñu ñëw pour fa seen aajo faju te man wóor na ku fi ñëw sa aajo faju bu neexee am na solo maa lay bëgg kon ñu si ñu si jegasi nga day bind ko ni waaj nuyu waa yëpp ñu nuyu ñëpp nga xam ne ñuy jàppale ñu nuyu suñu dëkk waa Waalo waa Jaminaar fii dem na Fos dem ba Fuuta dem Gàmbi dem Casamance dem Kolda bëggee ñëpp daal comme lu ngi ñuy waxee rek jamono dañoo yàgg ndax yaakaar naa 2012 ba tey yàgg na fekk ko Fatou Mbaw mu jàpp sama combat sama combat maag boobu ma jàpp na si sama combat maag ñu ngi def maa ngi nii ñëpp di nga di nga encouragé di ko wax comme jamono dama ko yéene man moom moo tax ndax heure moo bëree si guddi gi soo jugee stade ba pare këram laay ñëw laay reer si kon xam nga loolu yomb su ma teggee sama ngemb fi fii laa jëm si. Mm-hmm. comme moom lu mu mm-hmm. kon ñoo ngi koy béggaat bu baax comme Mathia. Mm-hmm. nit amulul ci sama nit la. yàlla booy ma gars yi nag souvent bu ñu amee nag ku baax ku mel ni tamit gars yi dañ koy nëbëre. waaw foofu la ñu koy sëppee moom parce que sa def ko. waaw mais dafa yéwén. dafa yéwén wala sax Youssou Ndour Youssou Ndour ndax xol bi dafa rafet. dëgg la wallaahi rajo bi dafa baax. Ah, ah, su ampleur dugg na jël ma ampleur bàyyi nii jël ko jël ma ampleur ah, ah lii muy preuve lu waaye dama daa noppi ah. Ah. kilifa gi ñëw na mbër mag mi ñëw na sàrbe bi ñëw na laaj ko borom dëkk bi ñëw na mais mbër maa leen jaar man sànq laa yegsi yaa ngi si yaa ngi si yaa ngi si émission bi de direct ci émission bi nii waaw sa sa gaa sa gars yi dañoo seet si woon Messi doon ko doon ko seet si daal di ko sargal di feddali kóllëre daal seen diggante ak moom ak yow aussi sa diggante ak moom empereur yu ndaw yi. empereur yu ndaw yi bëri empereur yi. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. ndeysaan. ndeysaan. bu yàgg sax bu yàgg yàgg yàgg macha allah. macha allah macha allah macha allah. macha allah mu ngi nii toog. <laughs> mbër na def wallaahi waaye maa ngi nii maa ngi nii maa ngi si jàmm. kontaan nañu yow ma kontaan ma fa. wala walaay macha allah waay alhamdulilah wallaay de dégg na. wallaay de sax. macha allah. macha allah macha allah macha allah. amiin dina ñaanal topp ak yow sa njaboot. yàlla yàlla sàmm la. wallaay de wallaay wallaay wallaay. waaw loolu alhamdulilah. jërëjëf. ndeysaan jërëjëf. ñu ngi jëm si bis yu mag. waaye yàgg na yàgg na. moom damaa ñàkk yàlla. wallaay ndeysaan. ndeysaan waaw ci Massa Samb ci néeg ba <laughs> ci néeg ba waaw ba la pantere waa ala sa kii boobu sa sa sa sa sa son boobu nga doon déglu kii 50 cent bi 50 cent boobu noonu. waaw wala ay góo ay góo ak tabax tabax. daa daa nga bëgg affaire américain la voilà yow xam nga xam naa. am na solo waaw am na solo. walaay de sant jërëjëf. jërëjëf. incha allah incha allah dinañ gisee bu soobee sunu borom jërëjëf. am na solo. Mm. jërëjëf jërëjëf.

wane ne la ko waxee na fa lañ ne ah, mhm. te am na lu ci moom. Mhm. li jëm yi doon wax benn jour mhm. xam ne dem sugul laay soo xam loolu lépp. dafa doon tàggu rek xam nga tamit bu noonu. mais moom sagalee nañu tamit li mu def nii ndax. ñu xam ne ñu am waaye nag kii jar na. di sant yàlla baax na di gërëmaat ñëpp di baal wax bu baax. Hmm. jërëjëf. yaakaar naa am na solo man dama bëgg ma jox Madji mu sànni si ñaari. Madji kon Madji kaay foog Madji Madji sànni si baax. Madji kaay. sànni si bu dee ñaari kàddu. waaw du mën a ñàkk. mu sànni ko ci. ni ko sama grand Babacar di waxee. <laughs> Madji man lay bëgg. waaw ah, ñu lay fay. Madji un maa lay bëgg. di fay gars yi yëpp. di bëgg Madji deux sama waa ji. waaw ci loolu ne. waaw maa ngi rek. Hmm. di la sant di gërëm suñu sëriñ bi. di ja di gën koo xam ci Messi. Hmm. musique moom yaakaar naa kun ngay wax rek. Mm-hmm. numéro 10 tax ko yombul de. waaw. te moom. muy mm. Messi. muy Messi daal. en plus. Mm. nekk ndaw lu guddi. ku ko daj rek da nga yaakaar ne yow dong yaa ko daj. waaw. di nuyu champion tamit di mu firndeel ci moom. nga mm. xam ne yàgg rek bawul dara. waaw ndax tey. bu ñëwoon nii te moom seede bu ci dee. kon ñëw ni du confirmer. dina am dina am dina am lu ci des. parce que wax na fi mu moom ak ni mu nekk ak moom. di ko dénkaat suñu bopp rek. la xam ne moom. ñun ay doomam la ay jarbaatam la waaw mu jàppale ñu. kon li mu def ak champion bi rek ampleur. ñun dinoo demal ay combat am solo. te suñuy rakk dañoo am combat. muy Mathia di la. ay làmb capital la. di ñaan am combat am ci ndam géej waaye jëm ci kanam. ndaw ñëw seet si la ñu féetlu ko loolu li may wax rek souvent gars yi moom bu ñu amee ruq yu baax yi dañu koy nëbb moom mm-hmm. waaye gars yi kon ñu ngi si tey sa Youssou Ndour peut bi nga xamante ne loolu tamit cant la ginnaaw bi ma la nuyoo ziar la ñu ci julli ci yoon mm-hmm. di ñaan yàlla lépp luñ fi nekk wax mu doon amal njëriñ jaam yàlla mm-hmm. erreur bu ci mënta am ñu xam ne ndogal ci yàlla la nit matul dara. asalaamaaleykum. mais mu misi ak ñaan man. Mm. li ma gën a jaaxal mooy man séeréer laa. mais souvent sañ-sañ bi ma gis ngay waxee. mu mel ni da ngay jàpp si lu wóor da gis lu wóor jàpp si loolu aussi. Mm. lan la. waaw lii mbër yi di wax damaa yàgg mbapat damaa yàgg mbapat ci mystique. dama koy man bi ma juddoo ba léegi maa ngi si. loolu dama fa dama ko doon ci ndey ci bàyyi ci maam ci maamaati maam ñoom ñëpp. Mm-hmm. xëy na man maa ñëw xaw a a am tur tuuti rek xaw a xaw a siiw. Mm-hmm. mais ñu ma ko tax foofu ñu ngi fële ci kër ga toog loolu kese la parce que monsieur da nga koy gis mu kili sol yére yu rafet toog tey man damay ay bagage ah, yow dañ lay gis ngay kilin monsieur lan lay liggéey jàll nga yor alxuraan ñaanu baatin ay sungu fak ren wala lan waaw xam nga Sénégal loolu la gëm Sénégal moom li ma gëm mooy nga takk ay béjjén fii gauche droite wala ngay def yenn yooyu yooyu lañ gëm ko maanaam pour nga nax nit ki il faut ngay def yooyu noonu pour nit ñi soog laa gëm mais man soxlawul may def yooyu noonu li ma mën mën naa ko ñi ko xam-xam nañu donc awma ci benn problème bon xam-xam la si mbirum faas mbirum sunguf mbirum mbirum pël comme ni ma koy waxe yàlla may nañ si loolu mbiru fas ak sunguf ak nob ak lu mu mënte doon man yooyu loolu loolu dama ko fekk dama ko fekk mu mu doon loo xamante ne nii euh, dama ko doon ko am na ñoo xamante ni tey gëmuñu mystique ci làmb dañuy jàpp ne gars yi dañuy naxaat rek pour ñoom faaw nga entraîner a bëri andi fit andi sañ-sañ waaye dañuy gis xam nga mbër sax ñu naan ko ah li mu takk yëpp la waaw waaw làmb day bëgg nañ ci doole bëgg nañ ci kattan bëgg nañ ci physique bëgg nañ ci technique mu fit ak mën a bëri loolu nañ ko ci de parce que tamit loo mën a ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan boo ñaanalee koo xamante ne ni entraînement wul deful dara du dem fenn donc jàmbaar moo neex a euh, ñaanal boo gisee jàmbaar yi ma leen di ñaanal c'est parce que dañu fit ñii dañoo am fit dañoo am fit ku am fit dafay neex a ñaanal Balla Gaye de lu tax nga ñaanal ko yomb dafa am fit yàgg naa koo wax. Mhm. moo tax man suma koy ñaanal damay nekk à l'aise parce que loo ko wax da koy def. du hésiter xolam du ma cent mille six cent dara moom dafa am fit loolu la ko yàlla mayoon donc ku am fit moo neex a ñaanal ku amul fit mu neex neexutu ñaanal loolu kese la. ñaanal ñaan mas nga si daj ay coono comme di ñaanal nit wala ngay def dara ngay takk muy dëñ wala ngay takk mbër mënoo ko takk ba affaire def la coono yooyu voilà waaw bien bien sûr des fois da takk mhm. loxo yi dootul bouger mhm. des fois da ngay takk fi ngay takk sax nga nelaw fa mhm. li ci li ciy xew moo bari dafa métti de dafa métti ñu ko mën nag bëriwul takk sas yooyu ñu ko mën bëriwul Sénégal mais tey ku nekk maanaam maanaam man dañoo bari mais yombul de c'est très difficile jamono buum bien sûr loolu mooy sama liggéey. Hmm? waaw. naa ci xam dara. <laughs> waaw incha allah bu <laughs> ko yàlla dogalee rek. waaw ah. ah, oui pare na. pare na waaw waaw. mais li nga ñu mën a wax aussi rek de grosso modo rek tey aussi sa diggante ak Balla Gaye ak sa aussi. Balla Gaye mooy man. Mm-hmm. Balla Gaye 2 mm-hmm. mooy Messi. Mm-hmm. Diallo Messi mooy Balla Gaye 2. Balla Gaye 2 avant sax maa xam Dakar may dégg olof olof ma nekk Fuuta fële ci village. doon dëgg turam rek dama ko doon supporter foofu noonu lu ne jaral na ma ko woon yàlla dogal ma ñëw mu ne man koñ koñ bi yàlla bay euh, Balla Gaye dëkk ci dakaar foofu laay dëkk ñu ne ma fan man leen fan la ñu ne ma géejuwaay ma ne damay dëkk géejuwaay mooy marché sam bi muy wax foofu noonu foofu si néeg boobu la ma doon fekk man ak moom ñu am jaar-jaar gis nga comme premier combat boobu noonu kon contre Eumeu Sène combat boobu dañ naa ci lu métti mais boobu nit ñi xamuñu mu woon gars yi xeex ma ci combat boobu écarté ma ci boobu xamuma woon maa ngi yuuxu di jooy di wax oh oh sama waa ji jekku nañ ko sama waa ji jekku nañ ko nit ñi mënuñ ma woon comprendre. mu wax ci wax yu rëy ba génne ci lis mer ma xeex ak gars yi foofu noonu fii ci géejawaay ñu ne ma dee doo fi doo gis doo gis mbër. ma rey ci sama bopp nelawuma trois jours ñu ne ma doo ko gis man leen lii ak lii ak lii combat bi nii lay demee nii lay daanoo lii boo leen ko defee doo leen daanoon mais xam nga rek boo oyofee mbubb xamoo dara maanaam amoo yore amoo déggoo sax olof ju bëri boobu xam naa ne moo tax ñu ñu minimiser mais effectivement bi combat bi demee bu mu demee combat bi demee ni ma ko waxee bi dafa ñëw guddi dégg écho yi ne leen kii faw ma gis ko ci guddi googu noonu bi mu daanoo ci Eumeu Sène moom moo bi ñu àndee fële ci ci ci ci yëf ya ci guddi googu la noonu yàlla dogal mu ne il faut kii ma gis ko ñu indi ma ci moom ñu toog waxtaan ñu programme ci guddi googu noonu ñu génn muy góor ko am fit. Mm-hmm. depuis boobu nag man maa ngi si moom. Mm-hmm. am na nag ay combat yoo xam ne fekkuma fii comme par exemple bi muy bi muy bëree ak bi muy bëreewaat ak euh, Eumeu Sène mm-hmm. deuxième défaite boobu noonu fekkuma fi maa ngi Italie bi muy bëreek Boy Niang man fekkuma fi boobu noonu tamit maa ngi bitim réew. mais combat yam man yi ma fekkee man Balla Gaye 2 ma ne leen fay fay na fay nañ ma wala fayuñ ma man damay xeex. damay xeex parce que moomu ko ji wax naa leen ko. ànd nañ ci ànd am na loo xam nee na nee na am am na loo xamante ni nit du ko ba sa xam. sama diggante ak moom xam na xam naa. wallahi azim fu ne ànd nañ fa. kon mu mel ni yow fu ne def nañ ko man nag nee nee naa la man ak moom pik ak peel la bul sonal sa bopp. nit ku baax la nit ko am yërmande ci doomu aadama te en tout cas loolu la ma won ko am fit la loolu kese laa woon te incha allah. yal na yal na ko yàlla lafal cat moom ak mboolee ñu fi nekk ñëpp ñu dem ba si kanam mu mel ñaan daf la jaral bëggoo defet bëggoo sóobu si dara tamit te amoo ci non non man da ngay mën a xeex xeex da ngay ñaanal tamit day fay am fit man su ma lay ñaanal damay bëgg nga am fit mm-hmm. ak ci lu mu mënte doon nag da am fit ma am fit parce que man dooma dugal ci xeex ba pare ngay taxawee ne man moom damay engagé wu xeex damay xeex. mystique moom wax dëgg fa yàlla man nag du ma xeex boxe du ma xeex lii ak lii ak lii mais cadre mystique moom man moom damay raag ba tëdd ba tëdd ba tëdd damay raag ba tëdd. loolu kese la. am na solo kon ñu ngi lay ziar. jaajëfate xam naa ne dinañ programme gën a mën a yaatal ci waxtaan. nag sant naa la yéen ñii champion yu mag yi yal na leen yàlla ngeen gën a nekk ay champion. wooy ñii sax du leen du ma leen waaw ñii duma leen kii parce que si man lañ ba comme li Balla Gaye de wax seen kër nekk. fii kër Balla Gaye 2 la mu neex nit naqar nit fii man fépp fu ma nekk foofu mooy kër Balla Gaye 2 fépp fu ma mënte nekk foofu jàppal ne daanaka mooy titre foncier am sax moom moom lool lool lool lool la yàlla dogal man du ma tricher man duma ma duma wax lii wax lale je ma du ma tricher. kon Balla ku mu war a bëreel jarul muy ñëw fii. xalaatuma ko comme ni ma waxee comme ni ma waxee. man képp ku na ku képp képp ah, benn affaire am na de képp ku am parcelle mbëru man duma la liggéeyal. loolu de mën naa ko wax képp ku am mbëru parcelle man du ma la liggéeyal wax naa ko te maa ngi koy confirmer waaw fii ci parcelle laa dëkk fii ñii laa am balaa dara ñoom ñooy njëkk yegg si si man kon képp ku am mbëru parcelle man du ma la ñaanal ak ku doon nag ak ku mu doon pour muy leer pour muy leer dama ko souligner Souleymane naa ko confirmer naa ko tey képp ku am mbëru parcelle jarul nga may gis parce que du ma la ñaanal waaye maa ngi lay bëgg jaajëf jaajëf